حبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابل tey ñu gis la xam ne muy enterrement ki nga xam ne mooy waajur bu naa ni lii rek moom mooy àdduna et que waxuma la sax Idi mi nga xam ni je vis avec lui presque tous les jours xale boo xam ni xam naa fan la ma teg la sénégalais at fu mu nekk rek fu mu ne na tey jii lu ñuy tuddee tiis parce que mën naa wax ne du naqar ndax euh, ñëpp ciy jaar te yàlla yàlla yàlla yàlla li mu gën a ci àdduna mën nañu wax ni li ci gën lépp dëgg wante lii moom nga xam ni kenn mënu ci teg leneen la euh, di wax rek ni di ko encouragé di ko wax ni ko Euh, du courage metti na loolu mais nag lii moom mooy àdduna et je crois que je me dois et je crois que en tant que grand frère taxawu ko si moment yi nga xam ne am na tiis am na lu ko naqari loolu mais nag lii rek mooy àdduna loolu rek lañ ci mën a wax et di ko wax nag Momat famille bi yëpp ak sénégalais yëpp ñoo ngi koy euh, jaale waajuram bii fi génne yàlla na koy yàlla xare àjjana souffrance kawam ñaan di fekk ci bàmmeelam ak ñi fi fekk ñëpp merci ibi qarib hal siqamiya tasma'u yuqabiluni yawm al-muqaffa al-mushaffa'u أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آماني كما أتوقع moo doon àndal fii ak nekk waajur bu góor bu Gana Gueye 1993 euh, waaw ñu bàyyi ko mu sant ci ay ñoo nekkandoo waaw asalaamaaleykum ñu lay ziar baal ñu fàttali ñu tur beeg sant non day def ah. ki nga xamante ni moom mooy euh, Fadel Gueye yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko yàlla na àllaaxira doon def laayam yàlla na rëccu lu mu doon def si àdduna yàlla na suuf oyof si kawam vraiment Fadel da nekkoon ñu nag moom en 93 di liggéey si wàllu métier mu doon liggéey quoi mais vraiment ku baax la woon ñaqam la doon dundee te moom ku nangu woon liggéey la ñun Cambérène leen dëkk mu nekkoon xaritu Serigne Ousseynou Laye te ñu ngi koy jaale sunu sëriñ Limaamu Thiaw ndax wóllëreem la woon xaritam la woon Fadel waa Cambérène yëpp dañ ko ameel njukkal ndax dafa dëkkoon Cambérène ak magam bu ñuy wax Yongo këram la nekkoon mais maa ngi moom dañ doon liggéey 93 moom moo tax ngeen jël ma nii pour ma def ay témoignage kon Fadel yàlla ko yàlla yërëm te jéggal ko yàlla suuf oyof ci kawam ñu ngi koy jaalee bekk taawam ak Idrissa ak ay doom yëpp ñu ngi koy jaale yonk bu baax nagam bu jigéen merci. ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu ngi gis ki nga xam ne mooy Augustin maître Augustin Senghor. ñu mën a jege ko tuuti bàyyi ko mu sànni si ay kàddu. Euh, maa ngi leen di tey ñu gis ngeen am naqar bépp njabootu presse bépp njabootu tàggat yaram di ki nga xam ne mooy waajur bu góoru bu Idrissa Gana Gueye waaw xanaa kàddu euh, naxar parce que xam nañu ne waajur moom bu bàyyeekoo day metti euh, njaboot gi. Euh, Idrissa nag xam nañ ko doomi réew mi la bu yàgg sigil réew mi waajuram yi takk tàggat ko ba mu toll fii ñu xam aussi euh, digganteem moo ko euh, waajuram bu góor na mu toll woon parce que saa yu nekk bu ñu amaan ay compétition yu mag euh, mu ngi woon foofu ak wetam ba su ma juumul Côte d'Ivoire bi mujjee mu ngi fa woon mais yàlla def nag mu wàññeeku baaxoon na suñu jëmmu bopp comme si jëmm football sénégalais yëpp Euh, gis ngeen ko gis ngeen fi anciens internationaux yi ñoom El Hadj Diouf euh, ñoom euh, Salif Diao ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne tey ñëw nañu teewee maanaam rob bi fii ci cimetière yu yoof xanaa li des di ko ñaanal di feddali aussi euh, di sagarna suñu njaal ak suñu euh, maanaam soutien muy nekk bu fédération bi bu askanu waa football bi yëpp mais aussi moromi joueur mi naataango bi xam naa ñoom bu doon seen sago ñoom ñëpp ñu ngi fi tey mais compétition yi ni mu demee moo tax loolu mën na am donc euh, yàlla na yàlla xare Fadel Gueye baayu sa Gana Gueye Euh, ci àddina yi gën a àjjana yi gën a kawe euh, may xolu muñ euh, Idi ak njaboot bi yëpp gëm nañu ne Idi dina ko continuer di ko siggil parce que Idi xam nañu ne ci yaram ak ci yu bare moo ko may mu toll fi mu teel foofu donc bu fekkee ne moom njàmbaar gi si moom la mais ci waajuram la donc yàlla na leen yàlla may xolu muñ te taxawu leen ci bés bu mel nii Euh, di sant borom bi tamit di ko ko dënk pour que mun ko teral teral bi gën a rafet. ñoom ñi ñëpp euh, ñu ngi jaale famille bi nga xam ne mooy famille éplorée bi ak membre équipe nationale de football ak communauté football sénégalaise et africain ñu koy ñaanal euh, yàlla xaare ko àjjana saraxam yàgg seeni loxo loolu sax. gis na yi tamit waa. may ni nga ko waxee. joué bi ñu yegsee fii ñu ngi nemmeeku ñi nga xam ne ñooy nekk ci njabootam njabootu sport bi njabootu tàggat bi. ku ci mel ni El Hadj ak lu ñi nga xam ne ñoo yor wàllum fédération sénégalaise de football teewe nañ ko ak ñeneen ñi nga xam ne mën nañ leen lim eh, nekk ci fii nii ci Sénégal ku ci mel ni eh, eh, Dominique Pereira Dip Doundou Guiss tamit teew na ci enterrement bi nga xam ne mu ngi amee fii ci cimetière musulman Bakhiya de Yoff ba tey. mbokk internet yi ñu ngi nii ba tey eh, fii ci cimetière bu Yoff am jour tey nag bi ñu yegsee fii ñu ngi nemmeeku ñi nga xam ne ñooy Euh, nekk ci njabootam njabootu sport bi njabootu tàggat bi euh, ku ci mel ni El Hadj ak lu ñi nga xam ne ñoo yor wàllum fédération sénégalaise de football teewe nañ ko ak euh, ñeneen ñi nga xam ne mën nañ leen lim nekk ci fii nii ci Sénégal ku ci mel nii Dominique Pereira Dip Doundou Guiss tamit teew na ci enterrement bi nga xam ne mu ngi amee fii ci cimetière musulman euh, Barkiya de Yoff ba tey euh, bokk internet yi ñu ngi nii ba tey euh, fii ci cimetière bu Yoff am ñoom ñi ñëpp ñu ngi jaale famille bi nga xam ne mooy famille éplorée bi ak membre équipe nationale de football ak communauté football sénégalaise et africain ñu koy ñaanal euh, yàlla xaare ko àjjana saraxam yàgg seeni loxo loolu sax gis na yi tamit euh, waa bibi euh, qaribun hal siqaamiya tasmau يقابل بيبي قريب هل سقامي تسمع يقابل